présidentielle bi 2024 bi loolee sax kenn mënu koon yaakaar wala laataa rek ñu publier liste yi nga xam ne moo tukkee ci candidat yi nga xam ne a bokk jogante ni kat ab option xam daal dafa mel ni dafay soppeeku ginnaaw ba ñu tegee commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne moo war a saytu ci mbir yi nga xam ne kat moo am ci wàllum guerre ñeel ñenn ci ay conseil constitutionnel waaye lépp la ko daal waral mooy nee na gu li nga xam ne mooy candidature bu Karim Wade ba tax na moom mooy candidat bu PDS ak ñi nga xam ñoo ko jàppal tànk groupe parlementaire bu wàllu ak ñi nga xam kat ñoo benn yaakaar ñoom nag dañoo daal di def lëkkaloo ba tax na ñu teg commission d'enquête parlementaire bii kon mission bi nga xam ne ñoom xamul loo xam ne la ko tax a jóg dafa delluwaat teg ñu mën a indi naam ay leeral ci ñii waaye ñu bëri ña ngay wax de daal dàq élection yi lu war la PDS nag moom am na intention kat naam nëbbu ko fësal na ko baax a baax di ci xaar jàppalu tànk bu benn bokk yaakaar te sax am na ko waaye la nga xam mooy la ju dëgg mooy ki nga xam moo yor nguur gi wala di njiit réew mi moom nag ne na patt daal moom mu ngi ubbi ay gëtam di xool am na mbiicoo mbaaloo goo xam ne amut àpp ba tax na kat kenn du xam fan la waa nen di mujj ay gëtëm lu dul rek exécutif bi daal di jël li nga xam ne mooy responsabilité ndax moom ci boppam mën na ko waaye tamit daal di tëddee njaaxaanaay bu ko defee tamit moom mi nga xam ne mooy respect calendrier bi ak séparation des pouvoirs waaye moom njiiti mi ci boppam bokk na sax ci ab parti ak coalition bu nga xam ne am na ci candidat waaye tamit lenn daal moo ci mën a am mooy rek ñëpp daal mën cee gis seen bopp kon tam pat pataal gi nga xam ne daal dafa mel ni kat ànd ak xel mu dal la waaye lu bëri kat ñu ngi ci ànd ak sikki sàkk ndax li xeeñ moom neexul ndax ñu bëri gis nañ ni situation bi nag moom mi ngi jur sikki sàkk bu nga xam ne bu ñu deful nànk rek lépp daal dina la këpp ci juróom-ñaari charge yi ci ne waaye tamit daa di nasaxal processus électoral bi nga xam ne moom moo nar a métti waaye ka muy gën a métti moom itamit di am Amadou Ba ndax du jore ci waaye li wérte mooy dàq guñ nar a dàq élection yi nag moom dana daal di ci miir bu nga xam ne ñu bëri nee nañ mukk du fi amee ak it campagne bi nga xam ne a tàmbale ci week bi waaye itam moment la bu nga xam ne wala respecté calendrier bii waaye lépp ma nga dépendre ci résultat yi nga xam ne moo dukkee ci ay recommandation ci commission d'enquête parlementaire bii nga xam ne kat daanaka moom ñu bëri daal nar nañ koo xoj